jàkka dëgg jaara sa bu soo rahmatullah mbokk ki ñëw leen di nuyu di leen ziar baax a baax Cheikh Fall Taïf la daay réjal bi kulli xayri commission culture soo bi ñëw lay ziar baax a baax di nuyu mboolem waa organe presse bi nga àndal bépp waaw xam naa jëmmi daay réjal bi kulli xayri de euh, li ko tax a jóg moom mooy liggéeyal soxna jaara euh, liggéeyal soxna jaara ku ko wax mooy liggéeyal Cheikhul Khadim yàlla ko nag li sosu liggéey bi moom mooy ziare ko fi nekkal Cheikhul waaye nag ak màggal poroxaan waaye bisu poroxaan bii nag moom baa mel ne mooy bis bi ëpp doole ci jaay leen bi ko li xëyri nga xam ne tey bu ab yëngoom téeméer la man nga ne fukk bépp poroxaan la waaw ndax dañoo fa dem yàgg faa dem waaye ku fa dem gis jamono Cheikh Modou Moustapha Bassir na mi mel ci coonay gan ya léegi nag mbooloo mi ne gis ni ñoom am nañ pas-pasu dimbali Cheikh Modou Moustapha Bassirou ci gan ñi yàlla dogal nag ñu wut fa pàkk maanaa ku fa dikkoon fekk fa soxna jaara nam la war a dimbalee nam la war a terale ak ganale la daayira bi nag fas yéene lu mel noonu nga xam ne ni ñu ko baaxoo xam mooy daayira bi nag am ak cant ci fi mu nekk ñun nag suñu cant ñu koy jagleel soxna jaara yàlla dogal na altine lañ fay dem ba àjjuma euh, yàlla dogal na ñu am fa génn kër waaye suñu bam dogalit ñu dem ba fi am fa ñetti kër waaye liggéey soxna jaara moom soo koy tàmbalee xam fooy tàmbalee waaye doo xam fa mu yem yàlla dogal na jamono biñ toll mas na wax na lim an am ci ay secteur war naa mat ñeenti secteur bu lim am ci ay section it war naa mat juróomi section ñoo ñëpp nag at mu nekk li ñuy dajale duñ def lu dul rek ak poroxaan def ko ay bernde waaye dalal mboolem gan ña nga xam ne ñoo fay ñëw di leen berndeel waaye dem ci ñu yem ci bernde yi rek ndax soxna Jaara rek kuy ku ko wax wax ni xam am njàng kon liñ ko njëkk a waajale mooy njàngam alxuraan ak xasida di ko waajal fii waaye bañ àggee foofu loolu ñu wëyal ci bisu bisu màggal bi nga xam ne képp ku fa ñëw daal eh, lii dundal ak ruux muy jàng alxuraan jàng xasida ak waxtaan da nga fa fekk waaye li dundal aw yaram yi nag muy mboolem bernde yi ñu xam nga xam ne moom ku ñëw màggal Poroxaan da nga ko xam loolu ku fa ñëw ku nekk da nga ko fa def. mu mel nag eh, ngont bii moom ab symbole la ci maanaam sax mooy ngont mi gën a mag ci mbooloo mi ngir ñu koy waajale ngir dem Poroxaan nga xam ne kon suñ ko tënk daal dañu wax ne loolu dëgg dëgg dëgg yëngu mbooloo mi. boo ko defee rek suñu waaj suñ suñ defee ngont mi ba noppi nag alterné nag ñoo fas yéene waaj dem la commencé alterné ba àjjuma ci ngoon bañ xam ne gan yi nañ ñu door a àndaat yéwi kon daal loolu mën naa ci ci tënk loolu mooy liggéey mbooloo mi ci Porokhane waaye noonu nañ amee yéen yëngu nag muy ziare Seexul ki fi nekkal Seexul Xadim waaye dundal leetu xadar ñaan way dawlu yi ak yeneen ak yeneen waaye ñu la amee communication mel ni sëñ bi ne sama nga xam ñoom it lépp information ak bande yi ngi gis ak affiche ak presse écrit ak parle lépp dafa am ci biir ci biir mbooloo mi ñuy informer mbooloo mi waaye bu ñu àggee ba ci bis ba it noonee lañ koy euh, wéyalee. waaye noonu la amee commission éducation culture nga xam ne lépp luy wàllu waxtaan yi diine yi ak njàngam alxuraan ak xasida yi ñoom ñoo koy def waaye noonu la amee commission relation nga xam ne ñoom ñi ci bokk ci na ci bitim réew. waaye noonu la amee commission bi nga xam ni moom la ñu accueil ay hébergement nga xam ne gépp gan gu fa ñëw yàlla dogal na ñoo lay dalal ñoo lay teeral. waaye daari bi nag am exceptionnel bu mu am ci biir liggéey bi nga xam ne li koy gis liñ koy gis bëriwul mooy ñun fi ne yàlla dafa dogal suñ programme da cee bokk képp ku ñëw dal si ca mbooloo ma sab saak am nañ barab bu ñu la koy dencal dencal la ko ba keroog ngay ñibbi muy ba keroog ngay ñibbi jox la ñaari tiket benn bi ñu def ko ci saak bi benn bi jox la ko saa boo ko soxlaa mën la koo jox programme bi nag nañ ko waajal rek mooy noonu mooy bu ñu xëy ci bis ba njàngum alxuraan ak xasida la ñuy wëyal saa bu ñu asamaan seete rek ba 10 heures 11 heures bu ko defee nag ñu andi xéewal yi bernde yi ndekki yi bu ko defee ci jógee nag dañuy wéyal njàngam alxuraan ak xasida yi ba bëccëg bu bu ñu ba julli tisbaar jot ñu julli tisbaar waaye bu ñu sëlmee tisbaar nag ba tey xéewal yi añ yi ñëw waaye jotee ba léegi njàng day continuer bu ñu jëmee nag ba ginnaaw takkusaan sëñ Maamadu Mbàkke xam sa diine xam ngeen ne at mu jot dana am benn taalif bu muy jox soxna jaara ñun yàlla dogal na baaxee nañu depuis 2000 ba léegi suñu dal fa la koy njëkk fa fa la koy jàngee. bu ko bu sëlmalee rek bu noppee timis yi bu noppee programme bi nag door a tàmbali programme bi nag ay plateau lay doon muy tànn ay tem ay plateau yoo xam ne bii par exemple ay tem yu yu wuute lay nekk ren yaakaar naa bokk na ci thèmes yi ñu tànn bi ci njëkk mooy yàqu-yàqu jamono lan moo koy waral lan moo koy saafara ak yan mooy yàq-yàq jamono beneen bit dana ñëw ci. rendre hommage ay kilifa tàmbale ko Cheikh Ibrahima Daaru Muxti waaye suñu Aatu Jaañ suñu Abdoulahi Akim waaye ak ñaari soxna nag yu bokkoon ci daay bi lool doon jàmbaar yàlla ko ñu liggéey dañ leen di rendre hommage ci bis boobu noonu. waaye mu mel ni xam nga daay bi chaque année par programme yi muy def da koy def ci ñeenti langue mooy def ci français def ko ci arabe def ko ci anglais def ko ci wolof même loolu programme boobu noonu lay demee bu ko defee mu ñëwee ba plateau yu jeex kuréel mi ak njàngum rajas mi ba samaan set ba samaan setee nag suñ xëyee parce que togg añ nag ñi nga xam ne ñoo yendu ci bis bi ñoo ñoo fa yendu ci àjjuma ji ñu bernil añ ba gën a tokku san ñu jël faa jógee suñu programme mooy dundal dundal rek màggal gi ci ñaari anam yëpp mooy ci jàng alxuraan jàng xasida waaye ak bernde kon daal loolu mas xam wax mooy dëgg-dëgg programme bi si incha allah kon daal xamaa sëñ loolu mas na ko tënk ci liggéey mbooloo mi leen sant bu baax baax di sant waa site info bu baax a baax dañaan yàlla dëgëral kàttan leen wasalaamaaleykum wa rahmatullah silmaxa yow looy waxate ndax sëriñ Saaliwoo ñibbi na jirim bi yow foo jamati ma bàyyi yow nooy defati silmaxa yow looy waxati ndax bàyyi sëriñ Seex Mbakke ñibbi na sëriñ Saaliwoo dem na yow la nu xam yow la nu am nga dem ba nu fu nuy jëleeti xel mu dal sëriñ Saaliwoo ñibbi na sëriñ Saaliwoo nu daan xamal yàlla ak yonent te nuy bégal tarbiya moo nu ko defal kuy wutu kii ci li amatul leen borom xel kom jàgg sëriñ Saaliw Mbàkke ñibbi na donga yi tey ji ñàkk nan mag ñi ka saaka ñàkk nan fu nuy jëleeti waaja daan fa bi gone ka tamtamal baayu seex musawa ñibbi na danga yi tey ji ñëpp ngi jooy murid yi tam ñoom ñëpp jooy yëg na kii ñëpp ko jooy sëriñ saali woo dem na ay bàyyi saali Mbàkke yow lanu daan fekk caroon xay ga daar yey xalaf-xalafi yaa tudde li jalbi kulli xayri tey jii ñi ngi màggal soxna jaara sëriñ saaliwoo moonu tudde fadlullaayi ngëneelul yàlla inal fadla bi yadillaayi yuutihi man yasaawu jaaraama borom njurul ak ndoogaan yaa faadilan fa dellawal xalaaqu yaaman bi faaraxa ni imlaaqu tey ma bàkk mbër ma sëriñ falliloo bu la xamoon dalay jëfal bilaay yàgg nga bégal muriti ahmadul xadim la ilaha illallah màggal borom Kazu Rajab Sëriñ Fallu Mbàkke galas bàyyi mbeel tontu nam naar cim xelam lu doy waar naar ba daanu ak leer naan ko doomo roome sëñ Fallilu tontu nam naar cim xelam lu doy waar naar ba daanu ak leer naan ko doomo عيدا مكملا خديما لرب الرعاة المختار العقيم إلهي بشاري فاصبر